Lo merci beaucoup. Kaffrine Lo. Sa Thiès. Kaffrine Lo. mooy tuut. maa ngi wax diaspora bi yëpp incha allah. Sidi Diop Paris le 29 juin. jërëjëf. ànd ceeg sama sama xarit waxtaan bi ci ma teel. wax naa diaspora bi xam naa ne mooy seen année waa ñu ngi def rendez-vous le 29 juin foofu ca Vélingara de Paris. di ci woo ak waa Paris yëpp Italie yëpp xam fii Suède Angleterre Allemagne waa Canada. Brasil. Senegal il faut que vous débattiez avec l'eau. Donc on a eu cette question de Merci. Merci. Thank you. hôtel Sénégal Paris le président da leen wax na waa Paris waaw billet yi ibbi na ku bëgg a jënd sa billet teelal nga woote ci numéro yi gaaw ndaxte fitte ak moo daloo dañ fa war a jàkkaarloo jërëjëf fa war a ànd ak sama père père Fall mbokk ay soos bi jógee Alaaji jërëjëf Sidi fii père Diaw ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay loolu mooy di xamal bi le 29 juin. ay ca Balla Gaye. Xass Bécaye. Malick Thiandoum. Xass Bécaye. ma andi ceeb sama xarit Malick Thiandoum ci kaw. Baye Tidiane Lassone. dafa bay ah Bécaye Mbaye. Bécaye Mbaye. Malick Thiandoum. Malick Thiandoum. dana ñëw présenter Balla Gaye Tapha Tine. ay ca. waa Tiri Tiri Uba. Yékini Diakhaté moo tëgg ca Thiès. waaw mu ngi noonu bu rëy mu dox ci diggante Youssou Ndour bu Tëngéej ak Pambaay loolu mu ngay am ca hippodrome ba ñuy wax hippodrome jaww ma kodd jaww ma kodd Diop. Diakhaté Thiès Diakhaté waaw. Serigne Mbacké Ndiaye ancien ministre. ñëw na ci bis bi waaye Ousmane Noël Dieng ñëw na ci bis waaye sunu nawle Cheikh Bay Cheikh Bay bu Alaaji Mansour Bay ñëw na ci bis bi président bi raa seet mention spéciale aa dama xalaat Sëriñ Mbacké Ndiaye waaw kay kay ko doomi Sëriñ Mbacké jaga ñam Sëriñ Mbacké Ndiaye El Capo ndax di ñu nga xam ne dama liggéeyal réew mi mooy Serigne Mbacké Ndiaye maa la ko wax Bécaye Mbaye Malick Thiandou ci kaw Bécaye Mbaye Malick Thiandou ci ay ca Bécaye Mbaye as Bécaye ko falu mo na mo tax ba Baye Modou Pa Modou Mbaye Baye Serigne Mbaye dëgg na ko Serigne Mbacké mas mas Bécaye na léegi nag maa ngi nuyu Kandji production di nuyu Tafar Kandji Mor Mbaye yàpp na dina ma fay ngaay Gora Ndoye Moussa Fall xarit Anta Seck groupe mafia def ci cop kenn ñoom waaye njagi El Capo maa ngi lay ziar Baye Ndiaye Alain Ndiaye Aziz Alain Ndiaye Massata Alé Ndiaye Albourakh Jador ñu ngi leen di jaajëfal waaye di jëre Uba ñoxo Mbaye dafa am ñu àndoon nag Albourakh ci liggéey bi Pati Sène ñu ngi koy jaajëfal bu baax Pati Sène Pati Sène mention spéciale ñu ngi nuyu Mouhamed Jador sunu pet Fonship, aja, Sangomar, Chocopin, Original, Ubadi Viteri, CDC, ñi ñoy sponsori jappale ak Bourax. Modou Mbaye, Modou Mbaye. ayca Balla Gaye ana Balla Gaye léegi Modou nga wax ci Balla Gaye Tapha loolu foofu lay lamb yam revanche bu am solo Tapha nga gis ci yoon bi mu ne di bëri ay combat yu am solo ñëw ne dama am lu ma bettoon ci lamb war koo jëliwaat xam nga ni combat boobu du doon combat muy yomb mais ñu ngi bu baax a baax a baax a bu baax a baax Baye Ndiaye Baye Alé Ndiaye di si Alé Ndiaye Malick Camara sama xarit bi la maa lay ziare sama gars yi Père Moussa Bégé jaajëf kontaan nañu ci yaa ngi bëggal ndaw xale yëpp kontaan nañu ci yow ambiance eh, ci seen Sidi Diop la yam jërëjëf Modou Mbaye Becaye léegi nag Lamine Samba ñëw na Malick Sandoum ñëw na Haas Bekay ñëw na Haas Bekay ma bàyyi la nga nuyoo arène nationale. asalaamaaleykum mbokku lamb nuyu naa leen. ndeysaan. ana ñi ànd ak Balla Gaye numéro 2. ndeysaan il est parti ay orphelin lañu defar na ci lam defar na mbër jàppale na promoteur jàppale na manage jàppale na mbër jàppale ci lamb ba lamb mel nii mu mel tey kon yaakaar naa ni bu ñu ñëwee fii toog Baye Ndiaye Albourakh li nga def ak sponsor yi nga xam ne ñoom yaakaar naa ku dugg ci làmb ji tey sa xol sedd na waaye loolu du nu jaaxal ci yéen ba ngeen di dugg ci làmb yàgg na ba Abdou Aziz di tëgg Pape Faye ak Balla Beye numéro un bi ma romb léegi foofa ngeen tàmbale woon yaakaar naa ni benn champion ngi noonu di ñëw Champion in Ronaldinho. Parmi les deux lutteurs, il y a Parmi les tey Tapha Tine. waaw xam ngeen ne fii ñu taxaw. Fadam tuulal Lionu Guédiawaye noo gisee tey. combat spécial. a mu ne dem na kan waxi mag dem na Nathalie ay jàpp L'enfant de Malifara, le fils de Doubalès, le roi des arènes à 26 ans. mbëri dem nañ wuy ji Tapha Tine Balla Gaye dem nañ ci plateau bi Balla Gaye Tapha Tine ci félicitations félicitations encore Miss Diago vraiment dala ñëw def ngeen fulla dëgg la def ngeen fayda Père Bécaye oh Père Bécaye musuma gis làmb ju neexee dañ ko àndal buur daanoo mel ne yaa daan xoolal li nga wax ni defal fu la fay dañ ko àndal buur daanoo mel ne yaa daan ndeysaan xam nga ni li si njaago ni jàmm ak gën jëppi wuñu ko déedéet doomu ndey Pokola Balde déedéet ay jamagan jamagan dama bëgg ngeen tàccu ma li si njaago ku ko tàccu yàlla na Seydina Muhammad tàccu tàccu leen loolu waay na ko jàpp tàccu waay Perem Shapilongo Wapujut Tachuan Lung Sandon Kukala Yokumai Fatak Shul Perem Kailo Ejarida Dari Nyan Nyari Bari Ini Palagai Na Abdu Bahum Abdu Bahum Lalla Wame Ne Iba Iba kan li سيدي بوزا كبير سيدي لا لا لا وانت تديك جابوا لك لا خير ممتوكو ممكن ممتوكو مدانو لا لا لا لا لا لا لا لا لا jël bu leer bi moom. loolu koy jël ci biir géew mbokk yi ay boy. boo xoolee nga xam ne li jël bu ne doomu daanu la. dëgg la da koo doomu daanu. Balla Gaye bu matul fukki at ci lay tolloon te booba ba léegi ñoom ñaar dajewul le deux juin la foo jot le deux juin 2013 la ñu bëre woon ñoom ñaar. 11 2 juin 2013. Balla Gaye ci la daanoon Tapha Tine di fàttaliku amoo Tapha Tine ñëw bi nga ci takk rip mbala ah? a jàkkaarloo Tapha ne mooy loxo Eric Fabre ki nga xam mooy Balla Gaye nekkoon ci INSEPS nekkoon loxo Moussa Fall ñoom ñaar ñu war a jàkkaarloo secondaire ndaw ñu doon Balla Gaye lii waru sa am Liss Ndiago ñuy yem. Liss Ndiago pour la 30 secondes mooy loolu mais nag ndam ndam la rek quoi. ñoo doon daal gën waaye nit ñi xam nañu Pokola moo mën Liss Ndiago. ñëpp Liss Pokola moo leen mën. waaw mais gën a entraîné rek gën a defarwaat. tamit mais bu ñu sañoon bu demee nii quoi bu ñu sañoon bu demee nii quoi loolu. drapeau chef de l'État semaine prochaine ma ngay amee ca Mbour Malick fa la champion yéen a daan mais kontaan na leen lan la non non bu ko nii bu ngeen ko nii. lan moo leen naqari. et Balla Gaye moom kese. ñun ay mbër lañu quoi Balla Gaye moom. Balla Gaye moom kese dafa tin moom kese Eumeu Sène Eumeu Balla Gaye doo mi ngi noonu di ñëw l'enfant de Malifara l'enfant de Guédiawaye le fils de Double Less mi ngi noonu

Modou Lo le tonton de Baboy Malick le tonton de Tyson le tonton de Yekini le tonton de Triple Door kooku mi ngi noonu waaye muy daje ak Bawol Bawol bi Tapha Tine kooku moo daan Boy Niang moo daan Yekini Junior ñaari yoon moo daan Zoss moo daan Gouye Gui moo daan Bombardier Assane Diack daan Abdou Diouf daan Boy Sey daan El Hadj Diouf daan Talla Gaindé daan Sakka Dior daan Malaw Seras Tapha Tine la Bawol Bawol mbokk yi e ñëw leen Balla Balla Gaye 2 Tapha Tine borom Sakka Dior borom bi nga ci les yeux nangay nappante Tapha Tine Balla Gaye 2 oh là là

au Sénégal Malick Thiandou wow Tapha Tine a ngi sa wet wow Balla Gaye a ngi sama wet tey laaj bu njëkk bi laaj ko Moustapha Tine Baye Ndiaye ngi nii taxaw adduna yëpp a ngi nii xool ñu xool ñoom ñaar seen bis mu war a doon bis bu rëy lan la Tapha Tine bi ngi ci bis bismillah Tapha Tine dafa jàkkaarloo woon ak Balla Gaye il y a de cela onze ans mu ne woon takk rib Tapha Tine ni Balla Gaye di nga ci niin bat Balla Gaye ni ko ay doon kaa keroog ba ñu dajee ki nga xam ne mooy Balla Gaye jël ndam ci moom onze ans après ñu war a dajewaat Tapha Tine nga dem Abidjan nekk ci loxo Eric Fabre say entraîneur wax nañu wax nga waaye tey Balla Gaye a ngi nii yaa ngi nii combat bi ban importance la am ban Tapha Tine la ñu war a gis le 31 juillet xale bu waaw salaamaaleykum maa ngi nuyoo képp ku nekk mbooloo mi waaw maa ngi nuyu képp ku ci stade bi di nuyu coach David accompagné ma depuis Abidjan ba fii di nuyu aussi papa Elas ak staff bu góor mbooloo yëpp di nuyu monsieur Irek Fawo aussi nga xam ne ci ay loxoom laa ne woon di nuyu waa Abidjan yëpp. di nuyu képp ku teew ci stade bi dana tey di nuyu Père Bagaay si si Jaay Baye Jaay dañ teg foofu sa baaram ma ñëw dama doon noyoo wala maa ngi léegi nag dem nga Abidjan nekk nga ci loxo Eric yu kare ñu gis la nga dugg ci biir ndox ñu gis la ngay entraîné lu metti nga am loo wax jëmale ko ci Balla tey Balla ngi nii yaa ngi nii

nga jàkkaarloog moom ni ko dinaa la dóor ba ngay bëgg a dee loolu ci suuf nga ko wax ñii dañoo bëgg nga wax ak moom lu mel ni libi parce que li nga wax ci suuf laa bëgg mu jëm ca kaw. Malick comme dama doon wax rek foofu laa nekk ba léegi kii samay wax ak moom du bëri liggéey naa liggéey naa li mu waxaat loo bañ mu yegg si du ko jàppal bés bés baa ngi ñëw moom mu ngi entraîné maa ngi entraîné la suuf si dinañ ci xam dara incha allahu rabi. ay ca laaj de kaay. mbokk yi dégg nañu kàddu yi Moussa Fatick Balla Gaye li sa ay supporters bëgg a dégg ndax dinañu gis Balla Gaye ba njëkkoon a bëri ak Tapha Tine wala duñu gis boobu ndax Balla dina dugal loxoom mu dugaloon loxoom ba am ndam wala déet. lépp si taal a ji bisimilah rahmaani rahiim. aw ma sant yàlla jërëjëf Moussa sant suma sëriñ sëriñ Bassirou Alla di ñaan yàlla jàmm ci réew mi di félicité ñi nga xam ne jot nañoo bëre di nuyu amateur yëpp di nuyu képp nga xam ne teew na fi ay supporteru Balla Gaye numéro 2 di nuyu Baye Ndiaye mi tëgg naa ma ci di nuyu di nuyu ñi nga xamante ne wax yàlla ñoo nekk ba ca Paris ku ni Moussa Fall ak Vince waa INSES ma leen nuyu baax a baax di nuyu suma adversaire Tapha Tine di leen wax vraiment li fi indi mooy contrat ci li ma rek laa nekk Tapha Tine amal combat di ñaan yàlla yàlla ma ndam ci bopp. nit ñi dañoo bëgg a say supporters nee est-ce que dinañu gis Balla Gaye ba jëkkoon a bëri ak Tapha wala déet parce que moom nee nañu dañoo nam victoire. incha allah bu neexee yàlla man samay supporter xam nañ ma man caaxaanu ma bis bi ndax xam naa fu toll ci ma kii bu waxee ne fu mu taxaw la taxaw ba léegi mooy dama koy duma daan parce que fu mu taxaw la taxaw parce que bii paas dama koy duma daan kon dama koy dama koy duma daan dara mënu dox sama diggante ak moom ma duma ko daan walla Iowa. That's what it is. Google Angelen, I know you want all of your clothes that you want to be. Mas niggas, set up, man. Set up, man. My bro, set up. Set up, man. Okay? Hamburger, Hamburger, Hamburger. eh ñu ne ma de amul wax de. yow yow yow yow. amul yow man ma booy wax ay yow yow yow ba tey. fay ma moo doon naan yow yow. indi indi la maa indi. nga saral nga yërëm dolu moo ci bokk yam. nga wut ay ndimbal moo ci bokk yam. affaire bi amul yërëm dolu. xaaral doo tuma taxaw na mu ngi taxaw mu yaay sax tuma kenn. même maa ngi ko taxaw yow. fii mais maa la duma fii yaa ngi duma nekk mais maa la duma yow. fii nag maanaam duma boo ñëwee fii nag duma maanaam duma yow maanaam duma ba mu ci fii yow maanaam duma yow yaa duma ñu dama yow dama duma boo yow duma stress ngay génn stress ngay génn xamoo fi amal xamoo fi nga barki sëriñ si ñoo mbàkke stress ngay génn su nekk parce que 앞으로

को खियाई अकेला ने आन पूरे डरे अकेला दिन पूरे डरे मांगे कोटा माया ने सगो खियाई अकेला ने आन पूरे डरे मांगे कोटा माया ने सगो खियाई अकेला दिन पूरे डरे माया ने सगो खियाई Quiero de amor, moreno. Aquela de ar, moreno. Aquela de ar, moreno. Hasta ya que el monte sale, la va llevando un borrica y mosquina y la muda y roca y no Mari age madu sare lamaji badam bori bhai magire tabudang arobere Adna jage madu sare lamaji badam bori bhai magire tabudang arogayena Adna jage madu sare lamaji badam bori bhai magire tabudang arogayena Adna jage madu sare lamaji அதிபர் கை மகிழை தகுடனாரகை

Bivere Sud, Egor Makanyota, Ekan Milebe. Nikinabo Ahoda Anaman, Kajate Najer Anaman, Epamase e Bivere Sud, Egor Makanyota, Ekan Milebe. Nikinabo Ahoda Anaman, Kajate Najer Anaman, Epamase Bivere Sud, Egor Makanyota, Ekan Milebe.

دلت نگیر همزمان به ما بزرگ برسون به ما خیلی دای در برسون

la ah. ndax ñuy bañ ñii ñii ñii ay nit lañu ñun ay nit lañu wala ñu ngi béy ñun pikin bi rek direct parti Seydina Mouhamed ñu sàmm la. Thank you.

voilà mooy jàmbaar bi. ari mooy yàq lamb rek. monsieur Moussa. ñu dugal li nga xam ne mooy anas bi ñëpp déglu ko ay co dafa mbay ay ca ñaari mbëri Sanchez Amath Sène ci biir géew bi ñu wax nag ne dañuy def une minute de silence pour que xamante yi moom la ñu nekk combat yi yëpp dafa bëgg ko tëddal kon xam nga ne ñu na faloo xam ne Sénégal gépp ko bokk Serigne Mbaye sa lay targaan tabaski Fambodj ak xarit Fambodj yàlla xam ne ñoo bi mbër yi gis ngeen ci combat bi sànq gis ngeen Jaguar ak Ama Tidiane Faye Eumeu Sène Balla Gaye sànq gis ngeen Boy Sèye ak Bac Seras gis ngeen ñii 2006 Gaston xale yi ku ci nekk 20 millions 20 millions ca Maroc boobu dina ko fay 20 millions nga ni déedéet ay mbër ak waxtaanee dem ci ndawaro ma nga nii ba xoolal combat yi nga xam ne na ko du benn combat bu ci combat bu ndaw combat yëpp combat yu mag la sëriñ dama wax ne ku ñàkk ku mel nii xam nga ne ñàkk nga ni ku baax mooy Gaston Mbengue. dana wax ni ku nekk ci état bi te Gaston Mbengue mas naa déggal nga dugg taxaw mu sori ba Gaston Mbengue. de 63 ans nous devons ko boromam ci sëgi parti politique monde de la lutte le monde sportif en général nous Gaston jusqu'à sa dernière demeure rendre compte un vibrant hommage Gaston héritage bu nga xam moom mi yor tey jii structure bii di Gaston Production mi ngi def kenn kàttanam bàyyam tàggat papa Gaston Mbengue bàyyi makan la doon kii ah bi réew mi daf lay lamb moo jël alalam dugal ko ci lamb kii mooy nit ki nga xam ne bépp doomu aadama bu xamul ah une minute de prière ah une minute mooy mooy silence bi. non li ñu ne silence silence moom silence la mais nañu def une minute ku fi nekk Thiès daal jullit nga def fukki nit ak benn ku nekk bu dee beneen diine nga nga ñaan ci jooju ñu ko soxla ak yàlla ko yàlla xel àjjana. ayca dañu war ne na ñëpp jug taxaw mu def une minute yàlla na ko yàlla yërëm ak par nga xam may présenté 2024 fii si arène nationale diggante Eumeu Sène ak Sa Thiès 55e journée de la saison Alboura organisé ko mu nekkoon un gala boo xam ne exceptionnel un gala boo xam ne gis nañ ci ak Pokola un combat de titan un combat choc un combat boo xam ne Liss Pokola Baldé la ñu jox ndam ci kanamu Liss Ndiago Mor Kankang Mor Kankang moo fi daan Tapha Mbeur ah Petit Lo Petit Lo moo daan moom tamit ah Cheikh Niang Cheikh daan Djily Mbaye Cheikh Niang daan Djily Mbaye Tapha Gueye daan Bou Siteu donc lañ leen andiloon tey ci programme bi grand combat ngi nii il est 22h37 minutes ah tey Sa tey na tey Sa tey na mbaa dina yàgg mbaa mbaa dina yàgg ah lii sax dina yàgg Sa Thiès andi na tey bi Sa Thiès andi na tey bi mbaa dina dina yàgg ah Thiès bi doon wax ndax dina yàgg ndax dina yàgg Thiès boobu dina yàgg Sa Thiès Boy Niang Sa Thiès Eumeu Sène Sa Thiès Eumeu Sène dara xewagul loolu wax combat bi ay seconde la daanu nañu Sa Thiès a andi kay bi arbitre baa ngi leen di wax bëre leen arbitre bi moo bëre moo gis woon combat Balla Gaye 2 ak Yékini le 22 avril 2012 ndeysaan arène nationale mu ngi fees dal dal dal dal dal dal dal l'arène nationale a battu tous les records aujourd'hui merci Baye Ndiaye merci Alboura merci le CNG de lutte merci les lutteurs merci les promoteurs oh oh yéen a ngi ci Iba Kane TV ndeysaan di nuyu sama amoon yëpp leen nuyu Thiès Sa Thiès Eumeu Sène dara xewagul ah Sa Thiès 在